bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba ñi ngi am mbégte ci élection yi ñu nekk di sant waa Touba di sant waa département Mbacké gépp di sant soxna Walimata Seck ak mboolem responsable yi mu muy ndaw ñi ak jigéen ñi ak jeunesse féminine bi tey dañu am mbégte doon ñëw fii di jël euh, engagement ak détermination bi soxna walimati Seck am ci bàyyi APR ñëw rejoindre coalition Madické 2019 soxna Walimat ñu ngi lay dalal jàmm di la sant di la gërëm di ñaan yàlla ñëw gi nga ñëw ci coalition Madické 2019 yàlla na doon sa njiglaay doon njiglaayul coalition bi coalition Madické 2019 encore doon njiglaayul Sénégal ñi ngi lay dalal di la sant di la gërëm di la wax ne la nii rek la am réew boo ci nekkee yëkkati sa responsabilité ak sa engagement sa engagement wu askan jox ko jox ko nit mu fooye ko asaaloo ko ba fuyee àq ak yelleefi askan wi ba fuyee euh, lépp loo xam ne si luy luy démocratie Sénégal ba fuyee lépp loo xam ne mooy pas-pasu Sénégal yi rawatina pas-pasu këri diine yi kooku képp ku ànd ak moom te ab doon ab jullit boo defee ab jàngat ci li ngay def da ngaa war a jël say responsabilité bàyyi ko wan ko ginnaaw lépp lu koy xañ électorat bi mu amoon nga nga def ko. kon liñ lay ñaan fii ci centre de vote bu Daaru Manaan mooy centre de vote bu Daaru naan dafa am solo trop ci élection yii ñu dëgmal muy 87 bureau de vote ñu xam nag engagement ak détermination bi nga am ñu soxla. centre de vote boobu ma ñu gagné ko quatre pour cent. Hmm. incha allah taala. Hmm,

bu ngeen xoolee li am Sénégal moom rek tey bu demancé moom la ñuy gis Touba ci candidat ci Sénégal yëpp. Macky Sall ma nga jëm Fatick. toroxal Fatick wala du demaat fas leen yéen a bëccingal. Idriss Seck ma nga jëm Kees Issa Sall ma nga jëm Mbour euh, Sonko ma nga jëm Casamance mais président ma di ñaan fii lay woote ci kanam Xaadim Moustapha. radiyallahu taala anhu fas ko yéene dégg ay loxoom dem woote ñaan.

ñu daje ci rencontre bu mel nii kon du asaar ndax lii mënoon na bañ am tay ci bisu ajjuma ci yor-yoru ajjuma nga xam ne bokk na ci waxtu yu gën a sell ci bisu ajjuma bokk na waxtu yu gën a sell ci janti adduna yi. kon ñi ngi ñaan yàlla nim barke yàlla suñu liggéey maag soxna Walimata Seck ba jant bii tey ñu ko ñu di ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko def yàlla barkeele candidature président Madické Niang ci kanam Khadim Moustapha ci dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam jërëjëf yéen mbokki Sénégal man mata sek ma ngi len di nuy fi ci Touba daru marnan man wali mata sek kuma xam xam nga ne ci aper nga ma xamoon ma nekkoon gayndeek aper waye bis ni ki tay dama bayyi aper ndax aper kat ab coono bu reuy rek la ci jele won ak i kep ku ma xam rek ci Macky Sall nga ma xamone depuis 2008 bam mu assemblée nationale la génnoon assemblée nationale sama kër gi bu eggut batay tey bu yalla wé Macky Sall la ko waral jaay naa samay lal ci suuf laay tëdd ñii dugg sama néeg ñii ma dëkkal xam na ne ci suuf laay tëdd aw ma lal bu ma tëdd la jaay naa samay armoire jaay naa sama lépp pour Macky Sall léegi nag toroxtaane laa ci jële bëgg a toroxaale nit ñi loolu nag du ma gàddu àq ndax man ba may dugg si parti bi damaa bëggoon suqali sama gox bii mu xam ne nii dañuy dañuy yërëm jigéen ñi si gox bi di leen jàppale lool na gisuma ci dara. léegi nag sonn naa tàyyi naa ndax Macky Sall kat ña ko loon fii ci tuubaak Mbacké xamu leen. fàtte na leen ña ko faloon fàtte na leen day jël ay millions ak milliards am di ko sotti feneen ci ñoo xam ne bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg man na ci laa sonn ci loolu laa tay ci laa damm mënatuma ko dama torox dama sonn dama rus ci samay nawle ndaxte ndax maa ngi waaw maa ngi ànd ak tey jii nag jël décision ferme nag pour ànd ak président Madické Niang mi 2019 mbubbam maroon laa soloon damaa summi mbubbam maroon ma sànni naa ko ci àll ba tey lii laa sol muy son bu la fas yéene nag voilà président président Madické Niang 2019 ci dëkk bii ndaxte Madické kat fi nekk ni moom ak muritam foraatu ko comme ni ko Moussa Diouf sama gon yi waxee Madické ku ko xam-xam ne ci Touba lan ko xamee ci bëgg Touba lan ko xamee ci bëgg Serigne Saliou lan ko xamee kon nag la ngay dàqee bëy mu jëm a ah, ah, la ngay dàqee kéwél mu jëm ci àll ba nan ko dàqee bëy mu jëm ci kër gi muy ànd ak Madické Niang mii te xam ne moom nigul ba soxla di bëgg a dooga doon am murit dafa doonoon am murit avant nag te Madické nag ku ànd ak ku ne xam ne ne borom xol bu rafet la borom xol bu leer naññi la ku am teraanga la ma dikkee mii tey la ko yàlla dogal waaye yàggoon na maa bëgg a ànd ak moom depuis muy ànd ak président Ablaye Wade ndax teraanga rek la xam te nit ñi nag ku leen teral moom leen. waye nit ñi ne mom ay kasso momu len bu buñ tabaxoon ay téméré kasso tëj fi nit ñet ku bëgguta def la nga bëgg kenn mënul ko taxa def ma dikkee fi nekk ni dama taxaw tém pour and ak sama wa gox di wax wa Touba gep nan watel ma gis kii na safurla yalla téré nan nan nan watel ma dikkee ndax té ma dikkee kan man amna ci mom yaakar légui nak bu ko kenn moyele saw carte té ñi dugg ci dëkk bi naan murit la dañoo bëggeel murit yi donc bëgguñu murit doonuñu murit tey du ñu ko doon ëllëg dañoo bëgg murit yi bëgg a nax murit yi waaw